الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وعبد الأمانة ونصح الأمة وكسب الغمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا خالق waaw mbokk groupe bi ñu ngi leen nii di wax asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ñëw rek ci sàkkuteefu Cheikh Ihsan di ko nuyu bu baax a baax di nuyu waa groupe bi muy lam moo waral léeg-léeg doomu aadama bi di dévier ci ay pas-pas di dugg ci ay pas-pas yu bon rawatina ñii nga xam ne ñoom la ñuy tuddee quraaniyuun nga jékki-jékki rek benn waaye ñëw mën laa dévier facilement nga bàyyi sa pas-pas mën a topp waa jooju de ci la muy woote lan moo waral doomu aadama bi rapidement mën a soppeeku soppeeku boobu boobule loolu dafa am ay aspect yu baree bari yoo xam ni mën naa pousser doomu aadama ci loolu dañuy tënk rek benn bi mooy aljahlu bi aqidati sahiha nga réere lan mooy pas-pas bu wér nit ki bu réeree lan mooy pas-pas bu wér lan mooy pas-pasu lislaam bu wér détourné ko mën naa yomb day dem ba à la fin lay dëgg da koy jàppee caaxaan lay caaxaan mu jàppee ko dëgg moo tax Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu daan na wax ni mu ne innama tunqadu ura al islam urwatan urwa إذا نشأ في الإسلام man laa yaarif al jaahiliya mu ne dañ fecci buumug lislaam benn par benn fecci benn par benn santaane yàlla yi digle yi tere nañ ko fecci benn par benn kañ lay doon bu demee ba ay doomu aadama sosu ci lislaam ñoo xam ne xamuñu woon démb la mooy ceddoo xamuñu woon fan la lislaam jëlee doomu aadama yi indi leen fi ñu ne boo xamul fu mu déparé réer ci mën naa yomb moo tax boo fekkoon ay mboolay daw tey jii rek nga dugg sa mbir daw euh, man nga dem ba fu ñu teeree jii mu ti ñu teeree fu la neexul yow ndax xamoo fu ñu déparé ak xamoo lan moo tax daw da ngay xool ba xam gaa yi lan moo tax ñu de ñu daw fu ñu déparé ba ñuy daw fan lañ bëgg a bu boobaa boo duggee ci groupe bi da nga xam ne dawe kon bu fekkee ni nit ki dafa màbb lépp démbi l'islam man dara wérul li nekk ci kanam moo wér bu boba dugg ci ay heure yi dana ko yomb waaye doomu aadama da nga wara xam fan la l'islam jele do ma adamay démb li yàlla wax ni li yukhrij an-nas min az-zulumat ila an-nur boba di nga xam bu boba foy tek sa tànk waye bu de da nga effacé lépp li sakaram rek nga xol moy do ma adam bo xamni nit dañ ko am bay daw rek mu dugg sen bir mom fay foo ko gaa yi toll moom fa mu tollu gaa yi foo ko gaa yi rek bo fa la xam léegi nak lu koy réer moy lu waral gaa yi départ daw fu gaa yi jëm fan la gaa yi démarré moo tax du mën a bokk si course bi kon première njuumte gaa yi loolu la moo tax xudayfata ibnul yaman radiallahu anhu daan na wax ni doomu aadama yi dañ doon laaj yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam lu baax man ma koy laaj lu bon ngir lan ngir bañ cee tàbbi bañ cee dugg lu bon lan mooy lu bon ak lu bon pour xam fan laay teg sama tànk ba ëllëg si biir dara du ma mën a détourné jël lu bon cuub ko cuub bu baax ba ma yaakaar yi lii lu baax la kon Xusayfa ibnul Yamaan moom foofu la tolloon moom léegi saxaaba yi ku ñëw laaj lu ja lu baax pour man cee góor ci jaamu yàlla moom muy laaj yu bon yi pour mën ko moytu allahu akbar kon loolu bokk na ci point yi nga xam ni dana tax doomu aadama mën a tàbbi ci erreur ñaareel ba mooy taqlidul ama roy nit ci royu gumba mooy doy na ma rek doy na ma jeex na doy na ma doy na ma jeex na subhanallah est ce que kooku la yàlla yónni ci yow est ce que yàlla fa ni kooku du juum kalla kon yaa ngi ci erreur te amul ku mucc ci juum ci doomu aadama yi lu dul yonent yàlla mi nga xam ne sasama yàlla ko assuréel mission bi nii moom njumte du ci am kon kooku doo nga la yàlla jox garanti kon keneen ku dul moom boo ko toppee toppinu gumba da ngay dugg ci kàmb bés bu duggee ci kàmb ma dugg ci kàmb te xaw mu dugg ci kàmb ndax yàlla jox ko garantie ni waxee bànneex bakkanam déedéet moo tax boo gisee ay xale ñu ànd mbooloo bu kenn duggee ci benn mbir ñaar ñett rek mbooloo yëpp mën ci dugg moom boobaa ñu jëfandikoo seen xel 100 pour cent li ñuy xool mooy seen moroom yi dugg nañ ci bon facilement ñu convaincre leen dafay yomb loolu mooy taqlidul ama boo gisee ay xale tey jii nga rom nga ñëw dox dafa sàgg gis sa benn waaye ñu koy néewal doole lu ci ëpp da ngay dew rek song commencé xeex ah da ngeen xam moom kese la ñu koy néewal doole yow vérifié woo ndax waa ji moo tooñ vérifié woo déet da ngay ñëw duggoo pare après nag bu ñu leen talee mën nga xam ne ah ndeke waa ji moo tooñ loolu mooy tax lii du ama l'islam dafay bañ loolu kon vérifié ba xam kii lan lay xeex est-ce que moo tooñ bu dee moo tooñ li ngeen wax nga tey ci loo xam ne ko yaa tooñ bu dee dañ ko tooñ na nga soogoo ñëw pour dimbali ko kon taxlidul ama roy royu gumba ñëw rek doyloo waa ji cent pour cent wala doyloo ni lii kat comme samay nit ña nga ca rek kon lu baax la lu waa ji wax noonu la musu boobu dafay tax nit di jeng ci wàllu pas-pas beneen aspect bi nga xam ne tax nit di jeng muy alxulu muy ëppal ëppal nga dem ba jàpp ne doomu aadama bi lépp lu ma wax ci mbir bi noonu la bu waxee moom lépp loo mënantee vérifié woo jub na jubul da ngay bàyyi la nga woon nga téye ko te loolu dafa daje ci xuraan yu ne yi lépp lu ñu fas ba Mbàkke Saaxo fasee lu wóot ak loolu rek ñu bàyyi la ñu fas dem fasi Mbàkke Saaxo lépp lu ñu gëm na ko Mbàkke Saaxo gëmee lañ ko gëmee ñoom mooy vérifié tuñu ndax kii nam ko waxee noonu la ndax kii mu war naa mën a jub kon ëppal nañ ci waa ji ëppal boo xam ne jàpp nañ waa ji mu wax noonu la jàpp nañ ko wuuteeg waa ji da ngaa weddi kon loolu xulwu la ëppal la te loolu lislaam da ko dàq moo tax yàlla dan wax ni ya ahlal kitaabi la taxulu fi diinikum wala taxulu ala allahi wala taxulu ala allahi illa alxaq innama almasihu isa bnu maryama rasul allahi ba aay ja jeex yéen ahlu kitaab yi bu leen ëppal seen diine bu leen waxal yàlla loo xam ne nekkul dëgg Isa mii kat ab jaamu yàlla la ndawal yàlla la kon ñoom ëppal boobu ñu ëppaloon ci moom moo dem moo tax ñu dem ba jox ko garaatu yàlla dem ba jox ko cëru borom bi subhaanahu wa taala kon ëppal day jur ci loolu kon da ngay ëppal ci nit dem ba waxam dootu ko contrôlé ba yow lépp lu mu la wax keneen ku mënta doon waxam na koy sànni fële jàppal waxu waa ji moom mooy dëgg te doo vérifié kon ëppal ci nit dafay waral loolu kon euh, pas jeng ci pas-pas yu bon ëppal dafay waral ci te loolu arrivé na ñii nga xam ne ñooy xuraan yun ëppal nañ si mbàkke sax ëppal boo xam ne jàpp nañu boo jëlee bépp jullit bu nekk ci kaw suuf nga teg leen ci balance bépp jullit ci kaw suuf ya ya jàll ak ya nekk jamono jii yëpp nga teg leen ci balance teg mbàkke sax mbàkke sax wat leen mooy lépp loo xam ni jullit ñu ko doon jaamoo yàlla dippi jamono ci yàlla Muhammad ba tey jii mba Mbàkke Saaxo bu ñëwee wax lu wuuteeg loolu waxi Mbàkke Saaxo muy dëgg kon ëppal mënta wessu loolu kon ëppal boobu day tax dooma aadama day dem ba dootul xool luy dëgg li muy xool mooy la mu gis rek loolu mooy dëgg moo tax suñu borom di wax ni yaa ahlal kitaabi laa taxlu fi diinikum غير الحق ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا يين اهل الكتاب بلن ابل سي ëppal دين ابل diine ëppal دايو ndax li pas-pas bii gaa yi am ci Mbàkke Saaxo jéggi dayo la mooy benn doomu aadama lépp lu jullit yi doon jaamu yàlla ngay nekkul dëgg ëppal mënta weesa loolu kon kii gëm koo ëppal la ëppal ku jéggi dayoo ci gëm lépp boo xoolee lépp loo xam ni jullit ñaa ngi koy def moom mu ñëwee fa loolu baaxul léegi utal na ko tëggini boppam ñoom tëggin boobu lañ jël jiw nag aaya bi jiwu ko te ñoom dañuy dem ci aaya bi de trahison français boobu mu leen di yóbbu dañ fay dem duñu gis li waa ji wax de mais teewul loolu yépp wax waaj dañuy jël kon ëppal mënta weesu mënta weesu loolu kon loolu euh, topp ku sànku mu sànk la la moo tax troisième point bi mooy alxawa topp sa bànneex bakkan topp sa bànneex bakkan nag moom mooy bopp lépp loo xam ne ak jeng la bopp lépp loo xam ne jëng la mooy topp sa bànneexu bakkan moo ñu tegal la loo xam ne dañ ci gis sa bakkan lool dafay méngoog sa bakk bànneexu bakkan lool ndax pas-pas bii waa ji indi nag dafa méndu méngoog bànneexu bakkan moo tax loolu dafay jëngloo doomu aadama ndax kii def la koy yombalal pare indi la ay aay yoo xam ni ca lay ràbb lépp lu mu bëgg ràbb léegi nag yow boo gisee yomb te googu da lay jaral nag da ngay dem da ngay ci loola ndax bakkan kat bi buñ ko tënkul dafay dafa féetarlu moo tax suñu borom di wax ni wa amma man xaafa maqaama rabbihi wa naha nafsa an il hawa fa inna al jannata hiya al mawa yàlla mu ne képp koo xam ni ragal na taxaw kanam borom bi subhanahu wa taala ragal na borom bi subhanahu wa taala fu mu mën a nekk lu muy mën a def ragal na ni ëllëg dañ ko xisaab ci loolu waaye nag laloo koy dimbali mooy wa naha nafsa ay hawa mu xañ bakkanam bi bànneex yi ba bakkan bi foog nga xañ ko bànneex yi yàlla ma ne kooku nag fa inna al jannata hiya al may wàcc waaye kon bakkan bi foog nga xañ ko bànneex waaye bu ñu ko ñëwee tënkal la jaamu yàlla yépp yoo xam ne da ciy rab loo xam ne dafay dëppoog bànneexu bakkan te bakkan moom buñ ko faree loolu mu fëtërlu boobaa topp ko jeng ci dafay yomb lool te Mbàkke Saaxo loolu lay indi dafa indi façon jaamu yàlla goo xam ne da koo tëgg mu méngoog bànneexu bakkan lool lool lool moo tax boo xoolee ñi ko topp ñëpp ay xale yu ndaw lañu majorité ay xale ndaw lañu ndax xale ndaw moom dafay bëgg toujours fooyee bànneexu bakkanam moo tax suñu borom di wax ne araayta man ittaxasa ilaahu hawaahu waaw gisoo leen ci nga xam ni moom yàlla mooy bànneexu bakkanam bànneexu kanam mooy yàlla ndax nit ki ñëw ni la sàngara araamul dañu ko moytuloo kon nit bu naanee sàngara jàpp nañu defu lu xaram ki toppee mbàkke saaxo bi naanee sàngara jàpp nañu defu lu xaram ban bànneexu bakkan boo ko a rëy loolu te lépp loo xam ne doomu aadama jomb na ko def da dem naani sàngara buy naan sàngara mën na ko def moo yoon ci yàlla Muhammad ne yàlla yoon yónni nga xam ne moo gën a xam ñëpp mu ne ummul xabaa isi ndeyu ñaawteef yaa ngoog li war a ndeyu ñaawteef yi mooy nit bu rey usee fen na naan buggee ñàkk kersa naan bu bëggee tooñ na naan lépp lu mu jox mën a def bu naanee mën na ko def moo tax mooy caabi bépp mbon kon nit bu ñëwee ne lii araamul kon dèjà moom mooy mu ngi lay topp loo ba neex bakkan muy benn mu ñëw mbaam xoox mooy la yàpp ba dara newu ci mooy topp loo bakkan mu ñëw musique bi nga xam ni lépp luy source mbon musique la nga xam ni boo demee ci ba dancine yi bu wàdde niw yi fépp fu drogue nekk fu carte nekk fu sàngara nekk fu jigéen ñi jaay boobu nekk da nga fekk musique boo ko way de tegal sa musique léegi nga commencé dóor bul woo kenn balaa trente mille fees del kuy def saytaane mooy campagne pour nit ñi ñëw pour mooy si yàlla mu taxaw le musique boobu dara aramu ci man bànneex bakkan moo gën rëy loolu mu tax taxaw nga xam ni lépp yàlla fa ni laa si naa bu leen jege njaaloo kon njaaloo nekkul jëmm njaaloo fee la kon bu leen jege njaaloo mooy bu leen jege fee yi yóbbu ci njaaloo yan fee moo yóbbu si njaaloo bët xool tànk ko dox làmmiñ wax loxo teg tubéy si ñoo ko baa mu rësiti ko kon nag si yonent yàlla Muhammad sallam bi yàlla nee xul lil muminina yaxubu min absaarihim wa yaxfadu furujahum waxal julli ñu ñuy sàjj seen i bët sàmm seen i bay jigéen ñi ka zalika noonu kon yàlla mi ngi jël freiné bët bi bu may xool lu tànk bi yàlla xañ na ko bu dox lu xaram waaye loxo bi nag bañ koo laal mu ne yonent yàlla muhammad ni araam na ci góor muy nuyu jigéen joo xam ni mën na koo takk mbàkke saaxo ne loolu dara new ci kon mi ngi toppaloo gars yi seen bànneex bakkan ñu jàpp kon boobaa jaxasoog jigéen jonjoog jigéen sasoog jigéen dara araamu ci góor gu dox sol caleçon dara araamu ci dara araamu ci jigéen jox sol caleçon dara araamu ci subhanallah dara araamu ci jaxasoo góor ak jigéen dara araamu ci xatta passeport Mbàkke Saaxo mooy góor ak jigéen mën nañoo bokk benn jàkk ku nekk bokk sàppe góor taxaw jigéen taxaw góor taxaw jigéen taxaw laaj leen ko ndax loolu araam na nag loolu tontu ndax alxam waxu ci kon dara new ci kon lii bànneexu bakkan ndax mën naa weesu lii kon dafa woote woo bànneexu bakkan moo tax jënguloo ña ko topp facilement dafay yomb mooy boo indee nit ki loo xam ni da nga koy laxas si diina waaye lépp bànneex bakkan la kon jënguloo ci ay ndaw lu yomb lay doon cinquième point bi mooy xel jël xel ba koo jëfandikoo ci santaane yàlla yi loolu moo daaneel ñu baree baree bare moo tax ñoom boo leen xool seen wax yëpp yàlla dafa ni borom xel lay waxal kon ñoom war nañ mën jëfandikoo seen xel xam nga sànq weesuwul nit ku yàlla yónni ci yow yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga ne yonent boobu amul droit jëfandikoo xelam ci diine moom li li ko war mooy mu indi nas bi rek jox la waaye yow nag yàlla jox na la xel am nga droit jëfandikoo sa xel am nga sañ-sañ bu ëpp foofu ba yont yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam kon ni ku fas fas fas bi mooy jeng nga bépp façon jeng siem fas fas boobu lañu am ñoom ñi nga xam ñoo topp Mbàkke Saaxu ni alxan ka si lañ jóp te xel du attewoo diine déedéet yàlla dafay nañu jëfandikoo suñu xel pour xam kenn daana borom bi subhanahu wa taala xam santane borom pour meuna a jaamu yàlla waye duñu utiliser suñu xel pour xam pour pour pour dégg diine dédit non lolu njub de rëy la ndax xel moy lo xamni ni ci la doomu adama jëfandikoo taqdimul aqli ala an nasi ala an nasi taqdimul aqli ala an nasi nga jital xel ci kaw nas bi ndax xel mooy loo xam ni mën na jox nit ki du jub mën na koo jox lu ñàkk jub dangay gis koo xam ni boo nattee xelam ci wàllu àdduna rëy na lool ba yéem ñu baree baree baree bare bare waaye boo ko nattee ci wàllu yàlla zéro la waaw dangay gis koo xam ni day liggéey ci wàllu technologie xam-xam bu doy waar boo xam yow boo gisee da lay yéemu lool waaye bu paree gis muy dem jaamu ay nag te ana xelam boobu kon diine kenn jëfandikoo xel ba mu ñëwee ci diine rek dafa barase ko kon diine kenn jëfandikoo xel diine nas la ñuy jëfandikoo demal ci Inde dana gis ñoo xam ne seeni savant yu mag yi ñii xam ne dañuy liggéey ci wàllu technologie yu garaaw dañuy wàcc dem di jaamu ji seen nag yi dafa daan nag boobu ñuy jaamu mooy traîner ci mbedd yi dem àll ci mbedd mi bu soxlaa moroomam ñu nekkal ko ci mbedd mi léeg-léeg nit soxla ndawal rey nag nag boobule nga xam ne manta bañ nit ki jëfandikoo ko mu xam ni lii boo ko yeewoon fii tey jii manta yeey boppam kon bu jëfandikoo ne xelam rek na nga xam ne lii mënulu ko dara du yàlla mu war a jàmm mais pourtant xoolal xel nu mu am ci àdduna di liggéey wàllu technologie avancé lool mu wàccee dem jàmm ji nag ana xel kon xel kenn du ko doxal ci diine ñoom nag loolu moo leen daaneel ñoom kon bokk na ci mandargay jëng mooy jëfandikoo xel ci nas jiital xel ci nas ñu seen xel laa utiliser wolof lay wax ni xel bu doon jaay lamb moo tax nga gis ñoom ñu am kuréel yu bare bare bare bare bare lu mat ñaar fukki kuréel ak nangam ndax la ku ci nekk sa xel nga utiliser sa xol joxe loo xam ni bokk lak lob jox mo sa morom muy musiba julli rek ñoom bañ sa ñëwee wóot nañ ci wóote boo xam ne kenn mënu la ko wax bokkuñu heure ñu julle bokkuñu waxtu bokkuñu formule bokuy nombre julli yu julli da ci julli rek li waral loolu mooy xel lañ utiliser motax ku nek jëfandikoo diko xel ndax loolu mooy wa'tasimu bi jamian wala tafarraqu jàpp leen ci bubu yàlla yi ba dakhaliko subhanallah moo tax ngay gis ko xam ne dama ci dëkk tuba bi borom xam-xam bu mag la ci walu technologie ci defar ay mbir yu yene bu pare bisam jot mooy lay dem jaamu yàlla mu dugg ci bërëb bu muy jaamu yàlla ay estati nek fa estati état yoo xam ñoom ñoo ko tabax këlëre ko peinture ko defal ko dañ ko defaree ñuy tàllal loxo di ñaan état yooyu ana xel ma xoolal xel ma lu mu liggéey ci wàllu àdduna waaye xool ba mu ñëwee ci yàlla lu mu xool ma baras ko daan kon diine kenn du ci jëfandikoo xel kon diine texte lay doon nas kon ñoom bokk na ci point bi nga xam ne moo tax ñu jeng barastiku mooy jëfandikoo bu ñuy jëfandikoo xel ci wàllu diine demal ci chinois yi ku leen dàqal liggéey ci wàllu technologie amul dama ci japonais yi ku leen dàqal liggéey spécial technologie amul waaye ñoom àndal ay budaa la ñuy jaamu bu ñu paree loolu dem di jaamu ji ay xërëm yoo xam ni ñoom ñoo ko yàq defar ko su ne ba neexu leen dañ koy toyaat defar bu gën a rafet ba pare jàppee ko yàlla ana xel ma te léegi ñu defar appareil boo xam yow bu ko téye mu yéem la mais bu ñëwee ci wàllu diine xoolal na ñuy suufee ndax lan diine kenn du ko jëfandikoo xel diine tëj lay doon nafsu lay doon kon gaa yi nga xam ne ñoo topp Mbàkke Saaxo bokk na ci leen jàngaloo barastiklo leen mooy jëfandikoo bi ñu jëfandikoo xel ci kaw nas muy njumte gu rëy beneen point bi nag mooy al ulama suu am ay borom xam-xam yu bon yoo xam ne intention yi bon lañu am day tax mën a jàngaloo ñu bari ñoo xam ne seen xam-xam demewut noonu ñoo xam ni dañuy kaalawoo dëggu kaalawoo ay jàng ay aaya waaye la laxas ci ginnaaw yëpp mooy njublan ak ay mbir yeneen yoo xam ne ñoon tax a jukk moo tax suñu borom di wax ni li rudduhum wala yulbisu alayhim diinahum pour delloo leen ginnaaw rek jànglooy il leen ay lënt lënt seen i diine loolu moo tax a jukk xareen doomu aadama yi yóbbu leen ci côté ba ñu bëgg indi leen ay lënt lënt seen bopp moo tax Mbàkke Saaxo li muy njëkk def ba indi ay lënt lënt xooloo def jël benn xadis indi si ay lënt lënt pour ñi nga xam ne xam ne moom nañu ne voilà yéen wax dëgg la loolu lii mënul nekk mu firi waxee ko noo xam ne lu ñaaw lay doon pour laal say sentiment pour ne bu paree lim la mën a jox nag moom cadeau bi la war a jox mi ngi fee ci ruq ba bu paree ne mën la waa léegi nag jëlal lii lii mooy dëgg li nga gëm mu jàngee ci bu la intention bon la ci am firee ko noo xam ne demeewul noonu indi ci ay xaaj yoo xam ne xaaj boppam yi bon la ba yow bi nga xam ni amoo xam-xam laal nañ sentiment nga li mu wax dëgg la bu pare nag ni léegi puusal loolu indi loo xam moo ko ràbbal foofu ne lii mooy dëgg boo xam nga ne waaye li mu wax dëgg la ñu ko topp yëpp système bii lañ ko toppee moo tax yonent moo daan wax ni innama axaafu ala ummati al a'immatu mudillin ñi nga xam ne ñoom laa gën a ragal sama xeet mooy ay njiit yu ni sànq woote woo njiit waaye la tax a jóg mooy sànq ay doomu aadama ut mbooloo woote woo yoon woo xam ni la ci ginnaaw bu ko doomu adama yi xamoon tey jii muy musiba bu rëy kon lii bokk na ci li nga xam ni ñoom jengee Mbàkke Saaxo naxee na leen ko ba ñu jeng jëm ci musiba bi ñu dugg moo tax yàlla di wax ci alxuraan yahud yi nga xam ne daan nañ doxalee noona mu ne wa inna minhum la fariqan yaluuna alsinatahum bilkitab li taxsabuhu min alkitaabi wa ma huwa min alkitab buñ doon jàngal ñoo xam ni xamuñu dara dañuy lem seen làmmiñ li ñuy wax logg-loggal waxee ko noo xam ne demee wut noonu gars yi yaakaar ni nii la demee ci téere yi fekk demee wut noonu mbàkke sax lay def day jël benn aaya firee ko noo xam ne aaya bi tekkiwul loolu mu ne gars yi nii la انه لخول رسول كريم لي دا واخو يونت بو تيد لا مون يالا نينا يونت بو خام رك موي القران الكريم غيسو مي فري لي غاي كون غيسو داي جانغ اوي مي دا كوي لم لوغ لوغ فيرو فيرو بو خام ني بو جوبدي لا لا نعم. وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم نيغا ليرال لي ما تيس نيوم مون نيغا فينيرال سبحان الله كون لي لب لو يالا واخون سي يهود يي nga xam ne dañ leen ko naxee ña nga xam ne ñoo ñàkkoon a jàng ci ñoom mbàkke saaxo mu ngi koy utiliser si groupe bi nga xam ne jànguñu kon kuy woote woo xam-xam te yées lam mën a yàq ci ay jikko lam mën a defar na ci ay xale yoo xam ne jànguñu bari na lool lool lool lool lool te moom mi ngi ci logique boobu kon point yi dafa bokk ci point yi nga xam ni junj nañ ko rek résumé ko mooy mën naa tax doomu aadama jeng wàcc yoon wu jub yi tegu ci yoon woo xam yoon wu baaxul la ndax la li koy waral mooy ñàkk xam li koy waral mooy ñàkk am bagage yoo xam ne dina ko permettre mu xam fu muy teg tànkam léegi nag dafa am aaya bi leen di ndax ñoom mooy tibyaanan li kulli shay'in wa tafsila kulli shay'in téere bi leeral na lépp détaillé na lépp léegi boo yemee foofu loolu mooy njuumte foofu leen naxee mais yàlla mi leen wax loolu yàlla wax na kan la téere bi leer bal huwa ayatun bayinat fi suduri alladina utul ilma ay aayu leer la waaye nag ki ki ma jox xam-xam la leer attention kon yàlla mi wax ni ay téere bu leer la téere bu ñu defaayee yàlla moomu moo ni ci kan la leer ci ki ma jox xam-xam kon bu leen waa ji naxee ni dem xool xam la kon weddi na alxuraan karim kon yàlla mi la wax ni téere bu leer la téere bu ñu détaillé la wax na ci kan la déta kan la kan la ci kan la leer ci borom xam-xam kon borom xam-xam boobu nga xam ni yàlla may na ko bagage yi tax na xam comprendre téere bi kooku moo mën a leeral ki xam ne xamul la comprendre loolu kon buy leeral ki xam ne comprendre loolu mbàkk sax leen ci wedd da yàlla ndax yàlla ci leer leer na bare kon lënt yi def seen bopp ñoom au lieu que ñu dem gëstu jàng pour xam léegi ñu daal dugg ci piège mbàkk saaxo bi kon nag jullit bi dafa war a am bagage yoo xam ni ñoo koy permettre mu mën a xam mooy mu jàng ndax yàlla dafa wàccee alxuraan ci langue boo xam ni noo xam alxuraan xam bu wér loolu ci langue boobu la quraanan arabiyan gayra di iwaj inna anzalnaahu hukman arabiyan bi lisaanin arabiyin mubin kon foog nga xam langue boobu le langue boobu ne dafa lambo ay bagage yoo xam ni mooy tax nga mën koo xam jàng naxwu jàng sarf balaaxa ak yesi aju yëpp dem jàngi ulumul quran dem jàngi usul xam li wax nafiq ak mansukh xam li wax am ak khas xam li wax euh mutlaq ak mukhayyad nga xam bagage yoy le ak yeneen yu dul yooyu pour nga mën maîtriser alquranu karim jàng nak jangale yonent yàlla muhammad mi nga xamni mom la yàlla yoni won fas ko mu leeralal doomu aadama yi nga xam ne moo ñu gën a dégg lépp moo njëkk gëm l'islam ji amana rasuli bi ma unzila ilayhi min rabbihi wal muminuun kon moo ñu ko njëkk a gëm moo ñu ko njëkk a xam moom la yàlla leeralal sas ko mu leeralal ñu إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه أبر ما لك ليرال يوم محمد صلى الله عليه وسلم بجيب البري كو يلا موي ليرال يونت بي واي يونت بي نك يلا ساسكو مو ليرال نيو وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ما wàccee ci yow lii ngir nga leeral li ñu la wàccee ci ñoom kon yonent bi moom yàllaa ko leeral yonent bi moom yàlla sax ko mu leeral ñun kon Mbàkke Sakho bu ñuy éliminé yi yëpp kon jubluwaayam mooy bu leen dégg yonent Muhammad kaay la ci man moom nag mu commencé na day leeralal gars yi di yebal gars yi ci ay vidéo sama vidéo quinze dix-huit nangam mooy kuppeel na ak yonent Muhammad orienté leen ci boppam subhanallah kon mbokk yi leen ñëwoon di ko résumé résumé bu gàtt incha allah di wax ne yàlla na yàlla defal jàmm may ñu jub teg ñu seeta mustaqim